nga lu ma tax a génn fii yooyee may bëgg wala sama yaram bi yàq na xoolal kër ma kër gi li fi ne koo gis ni fu ma wokk dagg fu dagg yooyaa may bëgg a rey càmm yoo xewi xobu limon lu ne tànn naa ko waaw man yow gisatuma ko yo waaye càmm bàyyi ma waaye càmm càmm ma sa li ngay def nii dafa xew man ma gisatuma yow dootuma laal loolu dootuma jege càmm sama yaram bi yàq ma est laal na ma ma man xoolal ah am toogal tuuti léegi yooyu rey la. dama ne su ma fi toogoon tuuti it man yoo duma laal man caam. kër gi la fi ne amul fenn yéen yéen yéen da ngeen du laajte. waaw. yéen da ngeen di bàyyi caam mu toofe ngeen caam daal bàyyi ma bàyyi ko noonu rek. du ma ko laaj du ko wax dara su ngeen ma laajoon ma jox leen solution bi. caam solution ci yooyu yi solution au maa ko am man maa ko xam. te mën naa la ko wax laaj ma ni ma ni ma caam lan la. ma maa ngi déedéet. voilà la solution. nii bu ma wax ay xobi limon. xobi limon yi lan vite fait nii. caam lii lan la. ci bind. vite fait ma foog ne ay forate la mosquito. waaw. ala su dee mooy moustique anti moustique. anti moustique waaw. waaw ah. kii mooy solution bi. Ah. caam arme. piisal xool. oui en tant que yàlla lay commencé. waaw piisal del sën bu def la déedéet déet xam nga yow. nag yéen aussi càmm xaaral maa ngi bëgg a dee. waaw doy na doy na non non doy na doy na baax na baax na dama jënd. dama jënd kii maa ko moom biir feegi nii. càmm lii fu ma ko mën a jël. kii su ma xëyee suba ah ba ngoon fi leen sama poche bi laa koy dugal. càmm baaxee ma lii. waaye dama ni ba ma ah. am petit peu li may ma ko. ah waaw bàyyi ma jox la ko rek. waaw maa ngi càmm li ma yooyu woon dama fu ma laal bàyyi ma may la ko rek. ay càmm xam nga ku ma ko xam nga ku ma ko jaay. waaw. sa gos laa bii ñëw si biir kër gi sa ambulant la Njaga Njaga. foog ngeen jàppale ko. wala jàppale. ay yow xale bi ci li mu jóge ñu yedd ko mu bëlbati ko di jaay njaay mi ko jàppale ndax mu bañ a dellu ca la mu jóge woon. booy bi xamul lu ma yor. cinquante booy booy Makumba moo ma jox cinquante mille ni ko ni ko jox ko caam ah. booy bi dóor xaalis. yoo xam ne yëf yi noonu xam nga soutien de famille la. may naa la boobu jël ay caam guddal fan yow ay xoolal maa ngi mel ni kuy bëgg am naa jàpp te moom effet immédiat la dimbali yàlla lan la. waaw ah, dara la kañ. Ah, ndax yàlla nga ñëw dimbali ma ci. Ah. man kat kii suba ba léegi maa ko fekk néegam mu sëngeem di jooy boo ñëwee muy làqatoo di def yëf laaj naa ko ba sonn mu ne du dara man dama ni mbaa du paate mi nga roon déggante ma xanaa problème paate kay ñeme ko fa indi laa def. wuy wax la nit ñi moom nag dafa discret rek kër lan la doo ah? kër gi boo ko miinul ba nga koy miin ah lu xew ah xam naa ci leen yaa ngi waxi paate xaw ma lan yebuma sax ay mbiri góor ak yu demee noonu waaw waaw jaanu maa xool yow kon nga fi juddu bay naba tey bës a kii xam naa lépp waaw xam naa lépp waaw fi mu maa ngi xaar loolu tox sama nopp bi ngay wax wax yu góor ak kii wala naa wala la wala la ah mbaa dangaa biir ni awa ah ah ah dara ni nii rek la nii la ko defoon de rakk ja nii la ko defoon fii ba mu yaa kii eh, damaa ëmb lan la man li ma kenn teguma kudd sama papa mii ah, koy sosal kenn teguma kudd sama papa sama papa daf laa xas wala kan eh man duma ko doom ci jiiñ lenn de kan ma fenalati kan moom fenalati bu fekkee ne safar yi dañoo taxaw dama leen a ñaan dërëm waxuñu dëgg ma nuyoo bu egg sax du ko def ci ñoom nga naan moom ma ko teg bu ñu bëggee seen diggante neex rek seen toogee seen gel yi di di fen di dajale bay fenal seen goroy man duma ku ñuy fenal te goos boobu dinaa ko wax boppam waaye mi waaye naan jógewu ci man dañuy fen waaye yow papa Thiam laa doon xuloo war na dem ci sama copine bi amul lu mu fa waxut nee na moom lu mu am ñun ñoo koy lekk di yàq suñu der. ah léegi comme léegi man lan moo tax léegi man ngeen yeb man. papa Thiam laa doon xuloo te man li a mooy voilà. nee na sama papa am na auberge bu tudd chez Nico foofu lay dem di fa nekk xale jigéen. sa papa man man man mii eh. ku sa papa. man fi man la wax wala man la la wax man man man. non man sax lii muy wax daa étrange ci man lan mooy Nico fii ñenn ñoo sant ci koñ bi Nico. auberge. wuy ma. xadi auberge nga de déet waxuma kay waxuma man di tudd auberge je pense man xadi moom yebewu ma noonu wala caam man yebewu ma noonu du dem def ñàkk fulam caam day taxawaalu fu ne lay dugg du dem def ñàkk fay daal di ma ci tudd man lan mooy seen Nico ak fu ma am loolu fu mu féete ci réew mi. koy màndi di nëbbu de boo tërëfee feeñ. waaw waaw wax ko ñuy màndi. wax ko ñuy mandi man demuma dikkuma yooyu yooyu c'est pour les enfants ay chee chee di waxuma nangam sangam eh déglu ma fii laa lay wax xaw ma yow yaa wax waaye caam yéen ñaan ñëpp duma seen morom réew ngeen ba dof yaag caam xuma ko gën a réew ngeen may tudd di tudd ay obet ay chee ni ah, bu ngeen dajale wala nga may ko sa copine ngeen ko bu leen ma ci tudd ma seen morom. papa ko def mu wax ko boo ko deful ko wax. mais donc kon caam waxul yow yaa wax hmm. eh man duma sa morom ah. Adama yaa ko def mu wax ko waaye yow lan mooy seeni ko. laaj naa la ko yam fay dem. kan ma ah yow it nga ne man da fay dem. ah waaw looy fëtfëti daa jar yaa ko wax loo. yaa fa dem demoo fa daa jar di fëtfëti di tëbaka dal. Ah, mais mais attends yow kon kii yow yaa ko wax loo naan ma yow mi fay dem. waaw baax na nañ dem. ah hmm. lu taw te yàgg baax na mais seeni ko loolu booy tur ak fu mu am ba fan la bokk ak fu mu am. awa naa de xaaral ñoo toogoon fii léegi loo may nuyoo. waaw wala romb sànq fi nga taxaw ma lay romb awa di la nuyu nga man sa bàjjen laa bàjjen mooy baay am na yenn yoo xamante ni man maa la ko war a wax keneen waru la koo wax keneen ku la ko wax mën dal ci kawam waaye man mënoo dal sama kaw ndax man li sa baay nekkee sa baay man noonu laa nekkee sa bàjjen man nen laa soo dalee sama kaw toj su ma dalee sa kaw nga toj. man de doo sama bàjjen. waa jërëjëf léegi man dama lay lo léegi bàjjen moo ñëw di baal si awa àq. baal ma àq. baalu ma la. déedéet jullit du def noonu awa jullit du def noonu déedéet xale du dëgër ba mu ëpp dëgër bopp daam fu man nga dikk ne la baal ma baal ma awa ah, man sa bàjjen laa. yow loo may baaloo yow jarul nga may baalu. Ah, yow waxoo dara man maa dem ci Amina sos fa sos fa lu ne weng yow waxoo waxaanoo xam nga man maa la dugal. parce que xam naa sa jikko yaa gën a fës ñëpp comme Amina dafa nekk ci kër gi nag su leen mayee xaalis ngeen tagg ko bu leen wanee ginaaw ngeen koy wax lu bon moo tax ma dem sosal la la ma la sosal waaye waxoo dara ba may baar yëpp yaa ko xaw yëpp yëpp maa ko wax maa ko fen maa fen lépp waxoo dara man maa la fenal parce que yow neexoo xam nga awa tey mbaa xamal tey damay yëngal taxaw dangay taxaw waaw bàyyi eh danga eh fii da ngay taxaw tey awa yow mën ngay fena déedéet fena lu ma la bëgg jikko bàjjen dikkaat yaa ngi eh, dama lay rey nga naa yaa ngi may gaañ dama lay rey yoo xam nga ni bàjjen day wekki rek bàjjen yaa ngi may dóor peek eh yow man damay sa morom mooy fenal yow eh sigil eh sigil eh eh sigil laa wax boo sukkee damay sukk te bu ma dama lay dóor are awa dama ne nga sigil xoolal damay jàkkaarloo yow maa la gën a réew la gën a wëy sa ndey sa xoolal sanday sax duma moromam yoo xam ne maa la mën maa la ëpp doole da nga gis bàyyi gan dafa ne bàyyi gan ba ni tëf. yaa ngi may gën. duma la booleeg benn alaya waa bërëngu xoolal maa lay sifaayal sama bopp yow mën a bàyyi fen léegi day teg day teg ma fen damay laaj je te pose une ah ndax day teg ma fenalati. déedéet. ay man sama nam laa. yow salan laa non yow tuma de. de fi nga jëm dama ne salan laa man salan sama sidit nga jàpp eh salan laa. gis nga bu ma leen jàppee yéen ñëpp lay ñuus kër gi par benn par benn. waaw bàyyi fi ba pare bàjjen day dikkaat. waaw bàjjen xoolal hmm? day dikkaat. di jam di rendiwaate. di tër ah. ah, eh, eh, eh, noppil. bañ a maytu rek dañ ñëpp laay ngeen xam eh, amee caab waaw waaw yow yow loo loo wax xadi. lu sa doom loo wax ak lu ngeen jot xadi lu mu la wax. waaw moo ma wax lan dañ ko wax la wala lan la wax. non damay laaj mu ngeen jotee. daf daf ma sosal wala lan yow yow yow Khady lan la la wax yow ba. non non non yéen bu ngeen di xamu lu ngeen jotee. waaw lan moo fay yóbbu sama tur bay tudd ay seen niko. mais yéen seen niko mun leen koo bàyyi wax ci territoire bi wax duma laa ci biir ker gi te booy wax Khady la ngeen jotee ah mun noo ma tuddee. ah ba waaw su nga xuloo xuloo xeex sa xeex la. waaw ba ci la da ngay utiliser mu waaw man sama arme actuellement xam nga lan la. waaw c'est ko comme xam nga xadi ñëw na attaqué ma xale bu ndaw bu tuuti ñëw attaqué baayam ah ma attaqué ko ni ko sa baay day dem Cheikh ni ko am na fa am na fa nekk Cheikh Ba lañ fi bind Ba man baa ko wax. man su ma demande est-ce que yow. waaw yow yow est-ce que nit nga wala yow est-ce que jullit gi ngay woote mi ngi ci yow. waaw hmm, ah, yow non non yow est-ce que góor nga. Hmm, góor nga waaw waaw waaw non c'est vrai. parce que maag yow bi ñu waxee benn. waaw loolu dañu woon nañ ko enterré entre ñun ñaar entre c'est entre nous. waaw waaw deux yaa ngi dégg. waaw ndekete boobu da nga lok pour man vilipender ma. benn li ngeen jote boo ñàkkee sa ñàkk fayda topp xale yu ndaw yooyu di doxaan ay xaritam ba ngeen di jote ngeen di xuloo yàqati bul ma ci tudd ba mu koy indi ci kër gi ñëw di jooy ñun dañoo defoon cessez le feu yow soo ñàkkee sa ñàkk fayda yow aussi ba dem ci ay auberge ban lay bay wut néeg dafa bind sa tur ah sa doom su ma attaqué ma attaqué laa man suma arme la arme boobu laa yoroon ah. waaw dama lay détruire laa la wax sa doom dafa réew elle est indisciplinée dama ko fóotloo doom mu bañ maa fóotloo di ma wax ay xoma ay benn copine nam xoma lan ak lan koo xam ne maa ngi moom sequñu dara du ma moromam waaw gis nga nag doom su yorewul da ngay dóor baay ba yow laay dóor yow xam nga damay wax lu leer na nga yow bu réewee yow noo def nga ne lan yow fi réew jeexee nga commencé yow da ngaa bucc man sa grand la yow nga lan waaw grand frère bu ñàkk fayda ah yow im gis nga man duma sa morom booy wax xadi nga wax ak man man xam naa lépp yow yaa jël sa marqueur dem bind ko fa ci say problème te man def naa investigation mm-hmm. waaw xale bi bi nga ko yóbboo foofu li nga diggee ak moom defoo ko ngeen xeex fa waaw vigile yi ñoo la génne dégg naa lépp léegi xool dinaa demaat jëlaat beneen marqueur xam lu ma ci bind xam nga bee ba moo fa ne ba polygame laa cay bind mu leer na ah waaw boobaa. xeex xeex la rek bu boobaa dina la porter plainte. koy porter plainte yow man ngay porter plainte yow dama nga yow naa man ko wax loolu attaqué na ko dina ko waa kër gi nga xam ne moo la a ma na ma attaqué ah, ah, ma génne ma génne benn a ah. grave boobu yow boy tee sa waaw yaa ma gën a con yow. jàllal fële. fii nga génn da nga dem wax ak sa papa nee nga yow yaay ko na génn dem pour boolem man man sa jëkkër ak kii yaa ton père tu penses que man ak yow lu ñu mënul toog en tant que mature toog waxtaane ko jëf jot ñu jëfe ko nga jàpp ne loolu bu mënul nekk dem wax ak sa papa mooy ñëw ça va lu may doo loolu may def da war a xam ne man samay nawle ngeen. a fonk ngeen fonk ma yow sa bàjjan nga woo waroon nga ko wax la xew lépp yow kii sax mën naa ko toléré parce que tàmm na ay soo dimara mais yow duma la ko baal que je n'ai pas fait derrière toi fii ci kër gi ci ay ay sëriñ ak yooyu ma j'ai dit ñett ku nekk naan ma est-ce que bu sax sa loxo nekku ci doomu jàmbur la ma ne ki amit nan yoon yoon yóbbu Fatou Kiné clinique fi fekk bi ma koy yóbbu clinique avant ngay dem ñu wax ma ne nan ko faj médecin yi ñu ngi koy traité xamaguñu lan moo ko dal mais yóbbu ko ci ay sëriñ c'est pas une solution parce que dañ lay wax loo xamante ne day tas sa kër de fois léegi dem nga bàjjen je ne sais pas wax la ay wax nga solu ñëw toog fii di sànni aman mën nga ma wax lu ne ma accepté ko parce que maa nangu takk leen denc leen ngeen jàll sama ginnaaw mais je n'accepterai pas muy mu muy moom wala Fatou Kiné sama yaay toog nii na yëkkati ay baat di ko teg ci kawam moom nag yàlla bindee na ko ni mu ko bindee dafa baax dafa yaatu bëggul ku mer bëggul ku ko mere mais ah ça vous donne pas le droit ngeen am benn ton bi jàkkaarloo ak moom di wax duma ko nangu parce que amul kenn ku ma fi manqué de respect say waajur jox cër sa papa moo tax ma am ak yow problème nga xalaat ni boo ko woowee mu réglé ko parce que xam nga dama ko jox jox cër sa papa yow muy sama nijaay ñu bokk benn bàjjat moo tax nga mën a dem ci moom mu ñëw léegi pourquoi du nga respecté sama yaay li ma bëgg mooy man ak yéen dañoo nekk léegi naa fi ay divorce ngeen xam ngeen dama leen toog leen ngeen sëy seen sëy su ngeen amatee lu leen metti ñëw leen ngeen toog ak man ñu waxtaane ko te waxtaan wi aussi day nekk waxtaan woo xamante ni day ànd ak dégloo ànd ak yar parce que boo ñëwee déjà rek di waxtaan ak man commencé joxoon waxtaan bi du mën a sotti lii lay man sama bopp laay waxal parce que nee nga ñun demuñu fenn bul wax loolu. parce que man bu fekkoon ne xalaatuma bu baax décision bi may jël duma teg sama bàjjan mu toog ma avertir ko ne ko pour boo ñëwee nga may ma sama baat te yow bu c'est vrai bu mën naa am da ngay jël sama défense mais man gisuma loolu waaw waaw bu yow man dafa mel ne étrangère laa ci biir kër gi yow tu n'es jamais là xëy na peut-être pour les autres mais pas pour moi man fu ma la soxlaa duma la gis. léegi nga yaakaar ne sëy boobu jar na ko mais nag am naa lu may seet ndax nit ku nekk ak li ngay rus ki ngay rus sama bàjjan wax na ma bàyyi naa mu sedd mais nag bul yaakaar ne li ma doon tolleere ba tey dama koy nangu jeex na bis ni ki tey piétine bi nu ma doon def ci biir kër gi jeex na basta dootuma ko nangooti que muy yow muy sama bàjjan muy sa papa waa kër gi ñëpp dootuma mayeti kenn mu di ma piétine parce que comme man xam naa ne aw ma wéeruwaay xam nga kii sax am nga papa boo koy rusee mais man xëy na danga ma gisalul yaay boo may rusee wala sama papa baree fu tànk comme papaam ni mu fi tànk moo tax loo mbalit boo jot rek man nga koy sànni yow man may sa déchet bu mais loolu jeex na bis ni ki tey bàyyi naa nag waxu divorce bi mu sedd gis nga keroog fii lañ taxaw fii buuxu sama loxo bi mooy cinq nga damm ko sama loxo bi yëpp ay bleu la bu yow waaw bu yow war ngaa taxaw fii di wañaat sama loxo ak maag yow fi ni jaar yëpp buu yow am nga chance ndax dama la doon collé procès yow xam nga ma. oui. ma rejoindre am naa li mu hmm. bu ñu génnee amuñu fuñ jëm. bul fàtte ne avant ñuy nekk fii ci kër lañ jóge noonu fii sëy moo ñu fi indi jaamu yàlla. Amina sax nag moo ma tane man Amina moo ma tane. Hmm. te yaakaar naa ni ku sa mboot matul doo boot ay gàmb hmm. lépp loo ñu yoree ñun am nañ waajur yu ñu yoree lu law loolu mais dañ fee ñëw pour bëgg la fas yéene laa sëyal mais ñëwuñu pour yóbbu suñu bopp enfer te xarawuñ tamit muñ dëgg la waaye wax kenn waxuñu ñu xaru dëgg la man damaa naroon dem sëgëm nag man li may dund fii moom mii sama nawle loolu la fi dund kon yow war ngaa xoolaat sa bopp ndax ni ma takkee noonu nga ko takkee noon nga takkee say morom man li ma fi muñ moom ñëpp teg nañ seen bët fii wax nañ ma fi lu ne wax nañ ma fi dof nga wax nañ ma damaa ami rab wax nañ ma mankaan lépp te lépp lu ma nit xasee rek ci yow mi la ko gisee yow yaa tax nit ki yàpp ma ami naa yow man sa nawle laa te yaakaar naa ni ngay jàppalanteek Fatou Kiné man war nga mën a jàppalante noonu ak man sa nawle laa ñun ñoo bokk kër su ma nekkee ci lu dul yoon nga ne ma umu nañ defee nii nañ defee nii boo nekkee lu yoon Fatou Kiné ne la Amina nii ak nii ak nii dañoo war a jàppalante ndax dañoo bokk loo xam ne mënuñu koo séddoo. bu ñu defee apartheid rek dañuy neex a ba max mais bu ñu defoon benn say kër bi suñu borom kër moo ko moom ñu ñett ñëpp ñu suudewu doon benn yaakaar naa du ñëw même bu dalee suñu kaw tamit dina taxaw du ñu gaañ du ñu yàqal. Ah, umu li nga wax noonu dama la fay rejoindre ndax xam nga man sax man ci kër gi man man je suis délaissée man dan maa tegee de côté. mais yow moom ignorance total ngay dund ci biir kër gi yow moom kër gi kenn daf la considéré wul mën naa ni sa benn instant maa la xaw tane mais somm mais jàppal ni loolu jeex na à partir d'aujourd'hui gis nga ni ma mel ak Kiné noonu laay mel ak yow xëy na kay dafa fekk ni yow yaa ma mayul woon temps wala yow yaa ma ubbilul woon sa bopp ba ñu war a mën a def maag yow coaliser maag yow mais loolu jeex na bis na ki tey jàppal ni loo nekk maa ngi ci loo nekk suba ba ngoon jot boo ma ko waxee ma fekk si la ci su amee yaakaar naa ne moom mi sax suñu bëggee def dara nañu rusee dara comme ni mu ko waxee man rusee na ma sama papa yow rusee na la yaayam mi ngi naan sama yaay sama yaay sama yaay gis nga ni mu wéeroo ci yaayam man noonu laa wéeroo ci sama papa am naa noonu la war a wéeroo ci papaam wala sax bàjjenam bi ko indi ci kër gi sang bi xoolaatal sa tunde bu leen ma wax sang bi a fomenter seen coup ba ñëw toog le seul aspect positif de cette discussion xam nga lan moo ma ci bett tey mooy seen ànd yéen ñaar et nous savons les trois que lii bu subaa maa leen di àttewaat ñaanu ma ko yàlla nag ah, façon comme ne ngeen da ngeen a war a nekk ci jàmm def leen ko parce que man moo ma gënal au moins sax ngeen xam ni am ngeen jëkkër bu nekk ci kër gi et c'est un homme à qui on doit prendre soin yéen a ngi wax dañ leen a délaissé rek xalaat ngeen man li may dund su ma xëyee huit laata maa liggéeyee problème laa fi bàyyi su ma demee dang-dang pour lu ma leen andil bu ma ñëwee problème laa fi fekk sagal naa leen ci côté bu ne man samay néeg sax neexul sama kër neexu man je suis fatigué man je suis solide xam nga nit ngi dañuy am ay stress di jeex man dama am stress di gën a am yaram chaque jour parce que vous me pompez toujours le mauvais air yéen Mais de toute façon, c'est pas grave. Le meilleur quartier, c'est les jabar. Déggal seen boroom kër ngeen sayal ma fii ngeen ma sosal lu ne man du teg sama loxo ci kaw jigéen lu ne wax ngeen ma ko nag lu jaar dóor provoqué ngeen ma ci côté bu nekk pour ma dóor leen du ma leen laal jamais n'attendez pas ça de moi ce procès n'aura pas lieu pare na. pare naa ñu seen marché Espagne waaw. ma ne lan moo doon sa kanam gi daa paal yaa ngi ñaq rek. monsieur man aw ma lu may làq-làqal bu may nëbb nëbb sëriñ xool lu ma wax ci sa gannaaw dama koy waxat sa kanam boo taxawee. Hmm. yow ci sa bopp xaw ma kan waaye yow yi la ñu décidé nga abal nu sunu kër sëriñ xool sëriñ xool xanaa amoo foo jëm sëriñ xool la loo mel ni SDF ci dëkk bii. toog ci sa kër suñu kër gi tas nga koo tas suñu digganteeg ba mii da koo fimista fimista ba ñuy bëgg a dee nga albati ko sama doom ji bu nga bëgg a tasati ay sëyam duñ ko nangu nag jot jot na gis nga ñu ñoo takku ba ne tekk fi mu nekk nii fas yéene nga abal ñu kër gi ay sëriñ xol toog nga ñu mbooro sëriñ xol lu mënoo toog sa kër boo ngir yàlla day toog <sighs> bas li nga toog ndax yow sëriñ xol tas nga suñu kër gi fii nga fi toog jaxase maak Amina te li nga ci wax dara amu ci man nag maa sonn ci say mbir kii kër gi ci boppam ngay ba am nga jabar toogal kii ñun ñun la takk ñun moom la ñuy sëyal yow loo fi def boo ñëwee di changer suñuy mëñ def say mbir toogal sa kër loolooy dëgg ñoo décidé ñun ñoo la dàq suñu kër kay jot na de ndax yow mënuñu laa jox suñu nopp nga di ko warax jox la suñu làmmiñ nga di ko warax pour lan kër gi nag dañu ne sens interdit dañ la ko fee defal bu fi jaarati miiru kër bi sax yow waratoo xam ne mu mel ak bentin yow ñàkk nga dem xanaa amoo kër hmm. waaye mënoo faa toog ndax li ngay dund dafa naqari nag doucement <laughs> eh, xool bët bu dusul toj junjit day na borom tu dëgg eh, man nag lu ne muñ naa ko fi waaye man duma ma la wax dara ñoom ñii na ndax jël naa fi fukki décision ak juróom-ñaar ñu ne ma bàyyi ko ci kër bul ko génne bul nangal man leen maa ko fee ni ñu ma déedéet dem naa ba ni toggal leen ma lii nga dindi lool indi sa mëni teg ñu toggal la ko man sax am na lu ma dégg ne am na néeg yooyu ba néeg ci nag waaw waaw waaw ah, ah. ku li bawaat diñ leen ko toggalim ngeen togg ko loolu du ma ko weddi loolu du ma ko weddi waaye ku njaalo yaa xam yaa fii daal fanaanu fi nekku kenn yaa ñaaw xalaat sieste laa wax de waxuma fanaan fanaanu kenn kenn la sieste waaw waaw fanaanu waaye sieste na yaa ni fanaanu ni kenn fanaanu waaye sieste na wax ji daal du loolu wax ji wax ji lala bu ko ragal kii na génn kër gi mbir mi nag mooy man maa la fi ondoon te lu ñaaw xaju fii dégg nga yow dellu sa kër man xam naa sa kër ni mu daan kii sax lay waaye sans domicile fixe am nga domicile sax waaye ñi ma foofu fixé ndax la fa ne xam naa ko xam nga ma xam yaa ngi dégg la ma wax waaw dégg nga donc beneen bi mooy demal boo ma soxlaa yow xam xamante nañ di ma woo fu mu toog ñu gisee bu ma la namee ñu gisee ñu waxtaan yaa ngi dégg parce que doy na waar yaa ngi dégg man daal lool lool laa gis waaw nga baal ma nag baal ma kay amu ci waaw bët bu rusul toj waaw Ah, jërëjëf alhamdulilah rabil alamin bi ngeen ubbee seen gémmiñu forox yu xeeñ yi di xeeñ foosu duus yéen ñeent ñi yëpp di xeeñ marché yéen ñeent laay waxal di ngeen may génne seen kër alhamdulilah rabil alamin amul problème ndax man am naa kër koo dàq ci kër mu dem ci beneen kër wala mu tëdd ci mbedd bi rek du dëgg waaye nag balaa maa dem il faut ma am loo xamante ni dama leen koy leeral kenn par kenn ku nekk xam sa moroom fan nga koy situé wu ndax man ñëw ma ci kër gi rek toog dafa am yoo xamante ni bu ma liyaar dama koy wax dée da ngeen maa dàq jigéen kenn du tontante saay dama leen di tontu ba mu saf déedéet dan may wax dama leen di tontu comme damay dem damay dem rek naa wax li may wax te dem bu ñu neexee sa àllaaxira bu ngeen jaaree boor bi yàlla teg ma ko te bële bu leen duggee safara yàlla dugal ma àjjana wala mu dugal ma safara jaman fou de ça saay danga mën nga ma mbay ma ma wax li mu bëgg a wax yaa ngi toog di leen déglu ñuy wax te ne woo leen noppi leen may ma ma ñam. ma gis nañ ñu gisantew ma ak yow fii laa koy ñame gisantew ma ak yow bin may woo yaa may woosi waxoo ma kaan gisee bu nu waxee pare nga ma kaan gisee du ma ko nangu. Euh, yow ma commencé ci yow maire lax la yow yow kii moom moo ni ma li mu topp la sa doom bu ndax bu la bàyyee du dootul joxe dépense ci kër gi. amaloo ko njariñ amul ci yow plaisir nee na ras nga xeeñ nga doo sangu yaa ma ko wax. Eh, yow yaa ma ko wax. man ngay sosale may ma de. mais attends non man duñ la génne rek nga may jéem a sosala. Ah. Eh. ok arrêté leen ko de ah, ah, non non c'est vrai ko. Eh, di ngeen may dama am ngoro noppi rek. waaye non non mais dara mais man ma la. di ngeen jàmm may ma rek. dama ne la ñoom defal li ñuy wax seen kër la. saa yi pareegu ma de may ma nee na sëy bi muy sëy ak yow bu moo tax muy sëy ak yow waaye bëggu la tey bëggu la ëllëg ndax gëj leer na ma ni gëj naa fanaan ca ba nga fanaan ca ba dëgg la am du dëgg benn ngoog ah yow eh yow laay waxal eh vertement siru xew ana vie Diouf sa cantine ba nekk marché vie Diouf moo la ko luye woon ngeen di farantu mu lay bañ ngay bay fay wu dee bi nga demee ba seen relation am ñiiloo ñaaloo nga liggéey ko mu dee nga wut kayit ah. doon nu jàmbur Vieux Diouf Ali Baba naka jekk ma xam ne da ngaa mës a capable <laughs> capable moom Vieux Diouf am ngeen doom ñaari yoon nga yàq doom yi ah, yow yow yow yow dëgg la li ma wax baaba am ngeen ñaari yoon doom ngeen yàq doom yi ndax bañ ah, ndax bañ feeñ mu dee nga doonu kayit yi dem indi ko teg ko ca digg kër ga ni Vieux Diouf moo la mayoon sama kanam wasalaatu wasalaam ala rasulillah ma ñëw ci yow sallallahu alayhi wa sallam waxi jàmm rek <coughs> ak salaam ngay ŋaayi sa gémmiñ gi niroog camp yi petit camp yow bu ñu waxee ngay jaay innocent sa bët yu xóotu niroog bàmmee li seex ah! ŋaa nga nga ko Ali Sey ah! safar bi nekk ci bato yi di dem géej di ñëw jën wu mag boo fi indi aalee faram la ci bato yi la ne di dem indi jën keroog fiireelu la fiiriir Ali say la danoo yendu ba ngoon Ali auberge jox ko mu indi sama yoon nekku ci sa sa vie privée jabar la sama yoon nekku ci loolu may ma rek pareeguma ci yéen ah tiitoo dëgg la dëgg la Ali say da lay doxaan ba léegi Ali say xam nga ko Ali say navigateur xamoo ko xamoo Ali Seye. Ali Seye Bato Diagne. xamoo Ali Seye Bato Diagne. Ah. moo lay doxaan. saa yoo déggee kii di wax guddi Ali Seye lay waxal. Ah. boo fa aayewul day def appel vidéo ba fajar. ay di ubbil Mbarka Ndiaye. Ah. di laay duut di mbiita mbale moog Ali. Ali di eh, defi si moom moo aram ci biir géej gi muy neex. nee na moom dem ci Pape Dieng Delta man Pape Dieng. Pape Dieng mu fële yi wute jën moo may jën loolu la ma wax. Pape Seye kii eh, koy doxaan. guddi ah foo aye eh, foo aye eh, ah. taay WhatsApp appel ah, WhatsApp mu occupé. waaw muy occupé allez vidéo. ah yow nag. yow mii nday mille ji di borom kër gi di jaay personnalité dignité quantité di jaay wax ju xóot ak di profité say daam sa tur nga fee ca auberge be Martin xaw ma Saint Martin la xale bi ngeen war a dem tribunal. sa kay dossier mi ngi ci yoon yow. kan man ba yow. du dëgg dëgg la dëgg la ndax yow fii laa toog di yow. waaw naan la lan ngay wut see Rico. see Rico <laughs> bi far ko ci biir violé ko këyit yaa ngi tribunal. see Rico caam yoonam nekkul ci yoonu caam yoonam nekkul ci yoonu. caam yoonam nekkul ci yoonu eh, eh, yow yaay doxoon yow yow yaay doxoon xale ba te bi soo dof dof loo dinaa wax turam Fatou Fall Fatou Fall yaa koy doxaan. cayri ko ngeen di yendu di fa fanaan fi mu toll nii procédure fan yi yëpp dina ko accuser yóbbu ko viol parce que mineur la violé moom seen jëkkër seen Nico Ngong ñaari yoon ci kër eh yow am nga bu la tax yow déglu ma rek moo xam la sa takkoo bi nekk grand place bi nii nga fay romb yow di ko yóbbul ay cuuraay ay gongo <laughs> yow de waxi ku mer nga wax <laughs> waxi ku mer nga wax <laughs> Jibi Diallo da ngaa xanat yow waxi ku xanat nga Jibi Diallo safar la maa ngoog dégg ngeen léegi nag seen kër ngi noonu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakatu maa leen di jégalu ci yàgg bi ma yàgg seen kër di fi wax li ma neex di fi lekk di fi naan di fi def lu ma neex douze bi maa ngi koy remercier ndax suturaal na moo ba taay ma ngi remercier néeg yi ma doon seste seste naa néeg am ñaari yoon mu taala ma cuuraay bësal ma samay tànk épilé ma tusngal wasalaam maa ngi dem dégg ngeen na à bon entendeur merci xool eh sa loxo nga ne ma xool lan la suñu bu vous tey mënu nekk tax naa pare naa ci yéen mënuñoo gise tey mënuñoo gise tey astu mënuma gise yow tey fi nu waxoon foofu da ko bàyyi neex na ba <laughs> kii eh ma la benn affaire ci moom bàyyi ma wax la jib bi nekk ci poojam bi jib wasalaam eh, yow noo def pooj yow non non non leer yow Ali Diallo waxaguma ko. yow man ma fi ni delta ngay dem ci Pape Dieng mu may la jën ndekete Ali Seye xaw ma sa far la mu nekk ci bato. donc kii nan nga def yow ba mu gis jib sa waxuma fi début waxtaan bi. ni leen am na nit yu muy sees sa ngeen doon. ba ba <laughs> na leer ngay jaaloo. ba ba 22 yow ngay liggéey nit naan sama cantine bi lii dina leer dina feeñ. 22 ans ngay jaaloo jibbi sa poñ man naa ko war a gis man sa jëkkër. mais du way dux sëriñ xollu man caga ay ci ay des ay caga laa takk njaarokat yi nga doon fet see waaye